bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki waa àdduna sépp seen mbokk Cheikh Mouhamed Mbuub moo ñëwaat di leen dimbali di laabire di dimbalanteeg yéen ci émission bi nga xam ne leen rek moo ko tax a jóg mooy jariñe ci xam-xam ñoo leen ko diggoon nag ci ay bés yu weesu kon danoo ñëw tey ngir indi leen euh, deuxième numéro bi ci wàllum lasaraar ana thème bi lan la ba tey ñu ngi nekkoon ci wax leen nit ki bu fekkee da bëgg a sëy ak nit moo xam góor nga wala jigéen bëgg xam ndax sëy bi baax na yow yaa koy defal sa bopp bu fekkee da ngaa bëgg ànd ak moom liggéey nga xool ndax liggéey bi baax na wala amul war bu fekkee dangeen war a ànd voyager wala ngeen war lépp lu jëm ci wàllu charité maanaam wàllu liggéey wàllu société wàllu sëy wàllu lu mën a doon kon loolu mooy thème bi kon ñuy yéeg léegi ci plateau bi incha allahu rabbi euh, kon thème bi loolu lay doon incha allahu rabbi ñu yéeg léegi ci plateau bi rek indil leen li nga xam ne mooy tem bi ci deuxième numéro wàllu lasraar léegi lay doon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi euh, yi ñuy suivre fii ci Tawfekh Production kon dañoo ñëwaat rek bi yoon ci ñaareelu numéro émission bu jëm ci wàllu nasaraar bee passé waroon na leen lu jëm ci wàllu araf yi nga xam ni ak jàng boo mën a jàng di nga mën a xooloon sa bopp lu aju ci wàllu sëy bii ndax baax na liggéey bi ma bëgg a ak kii ndax baax na projet bii ma am ak kii ndax baax na yëpp da nga koy mën a xam te kenn ku ci nekk rek mën ko ko xam waxoon nañ leen ko ci émission bi passé waaye dañuy ñëw rek ci deuxième étape bi waxoon nañ leen ci wàllu xuruuf mooy araf yi les lettres en alxuruf waxoon na leen alxuruf wax leen a ba ja da ha wa za xa ta ya ka la ma na sa a fa da qo ra sa ta sa qo sho wax leen bu ci nekk ban lettre la léegi tey dañuy ñëw ci ñaareelu émission bi pour wan leen benn bu ci nekk nan nga koy adadee nan la ñuy adadee tur maanaam nan la ñuy jëlee tur def ko mu nekk ku ne xam na ne tur ay lettre lay doon lettre par exemple mu nekk A B C D ku ne xam na ni tur ay lettres lañ ko bindee nan ngay jël ba jël A mu nekk 1 B nga jël ko mu nekk 2 C nga jël ko mu nekk 3 D nga jël ko mu nekk 4 loolu la ñuy jàngale tey incha allah rabbi ndax boo jëlee tur par exemple nga jël al ismu muhammad ismu muhammad mooy noo muhammad muhammad muhammad tur baa ngi nii moo nekkaat nii léegi muhammad lan lay jàpp araf yi leen bindaloon ci yoon yu weesu wax leen ko saa boo gisee muhammad da ngay jël par exemple araf bu njëkk bi miim la araf bi ci topp nekk xaalonk beneen araf bi nekkaat miim beneen araf bi nekk boo boo léegi adat bi nag léegi nañ ñëw ci araf bu nekk nan nga koy ixtisaabee nan nga koy jëlee def ko def ko ay ay lettres subaa da nga jël miim nga xam ne miim 40 la miim mooy 40 ci ni nga koy gisee xaa mooy 8 ci ni nga koy gisee beneen miim bi aussi ñëwaat nekk 40 foo gisee miim rek 40 la daal ñëw nekk 4 kon boo xoolee 4 plus 10 4 4 plus quarante plus 8 plus 40 égale. tout simplement da ngay am 92 92 ngay am ci Muhammad kon mbokk yi lii rek mooy adat lii rek mooy adat su fekkee dangaa jàng école soit français wala nga def anglais wala nga def espagnol wala nga def portugais wala nga def yeneen langues yi dafay yomb trop pour nga xam lii mooy la tey boo fekkee da ngaa bëgg a xool pour Muhammad mii. par exemple euh, ak ku ñuy wax Jibril Jibril ndax seen mbir ànd na ah lii rek ngay def ni nga bindoon turu Muhammad fële nga amoon euh, li nga xamante ni mooy 92 noonu ngay bindaatee Jibrilu waaw noonu ngay bindaatee Jibril waaw noonu ngay bindaatee Jibril. jibril kon tey soo bëggee indi araf yi da ngay jiim bi 3 baa bi nekk 2 raa bi nekk 200 200 yaa bi nekk 10 lam bi mi ngi nekk 30 kon nii la ñuy génnee tur kon pour mu yomb kon fale yaa ngi amoon Muhammad fii nga am li gis nga 3 ak 2 ak 200 boo ko da nga jox cinq ngay am fii cent 205 boo ci tegee 10 yi nga am quinze boo ci tegee 30 yi nga am deux cent 245 kon ismu jibrilu 245 la jibrilu cinq lii mooy jibril kon mbokk yi su fekkee da ngaa bëggoon a xam turu muhammad ak jibrilu ñoom ñaar seen liggéey ndax ànd na li ngay njëkk a xam mooy français nga jàng wala arabe nga jàng wala anglais wala espagnol wala portugais am nga benn langue boo xam nekkoo illet euh, illettré comme ni ñu koy waxee kon boobaa li ngay def rek mooy da ngay jël lii ngay jël jibrilu yaa ngi amoon deux cent quarante cinq deux cent quarante deux cent quarante cinq léegi da nga jël deux cent quarante cinq nga ko quatre vingt loolu mooy jumlatu kabir bi maanaam jël nga ismu bu mag bi jël nga nom bu complet bi soo jëlee nom bu complet bi nag après nag ci ngay doogi eggee ci benn étape boo xam ne dinga nga mën a xam kii seen sëy bu fekkee dangeen ànd di sëy la wala da ngeen ànd di liggéey wala da ngeen ànd war a voyage wala dara ndax lu baax la ndax da yow di nga ci am intérêt ndax dina nekk loo xam ne day am mujj gu rafet su boobaa dafay mën a taxawee ci ci ay kër yu bokkul mën na nekk un mën na nekk deux mën na nekk trois mën na nekk quatre mën na nekk cinq six sept huit neuf euh, dix ba onze yëpp daf koo mën a nekk. loolu nag mbokk yi ana nan lañ ciy mën a eggee incha allahu rabbi bu leen fàtte fi ñu toll mooy alxuruf alxuruf mooy les lettres ni nga amee A B D noonu ngay amaate A ba ja da képp ku jàng A mën nga am A ba ja da donc boo amee abajada nag abajada comme li ñu ko waxee ci émission bi passé ci abajada googu ngay mën a sukkandiku ba am nga xam ni alif mi ngi nekk un baa mi ngi nekk deux boo continuer abajada ba mu am dix nag ci ngay jéego augmenté soo demee ba ci dixième bi ngay def dix dix boo demee ba ci vingtième bi ngay def vingt boo demee ba ci centième bi ngay def cent cent après nga dem ba mille kon noonu lay demee li ci topp incha allah bu ñëwee ci beneen numéro bi numéro 3 bi incha allah dana gën a leer asalaamaaleykum wa rahmatullah